moom moo di Ouzin ñu ne deeta waaye ñu teg ci manto man genre loxo yooyu man ba mu juddoo ba tey maa ngi koy do a gis te en général sax jigéen ni ñoo koy faral di sol góor nga di ko ñawal ñaw <laughs> ñaw jigéen aussi tamit pap <laughs> fan nga teg loolu yoon maam Matar Gueye du du Ouzin nga war a wax ak de pap mii nga war a wax. waaw non ñaw bi Ouzin da sol ni mu ko war a solee comprendre bu ko soloon ni mu ko war a solee maanaam kenn du tudd ñaw bi comprendre parce que ñaw bi combinaison laa ñëw ci biir combinaison bas large ñëwal ko manto ci kawam. comprendre euh, manteau bi bi mu koy sol manteau bi dafa am manteau bi dafa am bouton da ko waroon a relever tëj bouton bi capuchon bi tamit da ko waroon bi mu yegee ci kaw seen da ko na a dindi comprendre bàyyi ñëw bi noonu manteau bi ah, a simi quoi parce que bi ma koy ñaw man programme mu mu génne bi parce que dama ko ñawal maas bi bi ma ko ñawalee maas bi combinaison bi ma ko ñawalee dama ko monteel maas mais bi mu solee maas bi maas bi xat comprendre ma xam ni comme manteau lay teg ci kaw maas ñaw bi ci biir du feeñ comprendre ma defal ko ko débardeur comprendre noonu la ñaw bi demee. noonu la ñaw bi demee euh, maanaam tissu yi nga xamante ne moom nga boole ñu ci bari sax tissu bi dafa bari ay melax ay